jërë ngeen jëf mbokki internet yéen ñi nga xamee seeni suivre li nga xam ne moom mooy liik bu Sénégal tey di leen di fàttali door na bis tey ci sand bi match yi nga xamante ne moom moo doon daw dañ koy commencé ci ki nga xamante si mooy jaraafa ak Sonacos bu Diourbel match boobu noonu Jaraaf moom moo dalaloon Sonacos bu Diourbel ci stade Iba Mar Diop wante match boobu ndam demul ndam. niki noonu Dakar Sacré doon dalal ki nga xamante ne moom mooy jàmbar Dakar Sacré moo ko mujj dóor ñaari bal ci benn ki nga xamante mooy Stade Mbour tamit doon na dalal Guédiawaye FC moo ko mujj dóor benn bal ci dara Teungueth FC doon dalal ki nga xam ne moom mooy AS Douane mujj ko dóor benn bal ci dara niki suba ñu war a am ki nga xamante ne moom mooy Casa Sport war a dalal Excellence Linguère war a dalal Gorée génération foot war a dalal AS Pikine war a dalal ki nga xamante ne moom mooy génération foot. ci classement bi ñu leen di fàttali ni kon Dakar Sacré-Cœur moo nekk si kaw am trois points Stade de Mbour topp ci moom tamit ak ñetti points ki nga xam ne mooy Teungueth FC am ñetti points jaraafa ak. Sonacos ku nekk benn poñ nga am ñi ci des suba la ñuy ni seen match ci dimanche bi mu dox ci diggante gore Casa Sport Linguère Excellence Pikine ak Génération Foot di leen di jaajëfal ngeen topp seen information sport fii ci médinative yi jërë ngeen jëf.